bi ci des wax nga Ousmane yéen a bokkoon a coalition lu ndax yi proposé woon ko ko avant ngay dugg ci seen coalition bi. waaw Ousmane Sonko bi nga xam ñu ngi ànd man moom coalition bi. dañoo waxoon ni bu fekkente ni gagné nañu dañu criminal si loi ngóor jigéen bi Ousmane mm-hmm. Sonko ñoo ko waxoon ñoo doon campagne fii Touba tamit. Mm-hmm. sama oto lan dugg. Mm-hmm. ñoo yendu keroog la lekk man moom sama biir oto lan ko lekkandoo. añ bi sama kër gi lan ko toggee. ñu nekk maanaam ba timis ci bu sorti Mbàkke si wetu Sénégal ba mhm. foofu man moom kes sama oto ñu tënk la ñu tënk yëpp après ma bàyyi ko mu wàcc sama oto doog a dugg si otoom dem continuer waxoon nañ ci lii nii ba mu joxe woon waxoon nañ si tamit ni maanaam bu ñu jotee si réew mi ñu sàcc àllu réew mi ñooy dem di ànd ak Ousmane Sonko mu di ko hmm. ñi nga xamante ñoo rayoon nit ñi nga xamante ñoo taxoon ñu ànd dem si avion bi hélicoptère bi dem bi hmm. ñoo Euh, rëbës. Hmm. mais ñu nekkoon ministre de la justice kay dañ ko war a euh, Mimi Touré ak mali Sall mi nga xam tey ñu ngi si wetu Ousmane Sonko. 1000 hmm. milliards yi mu naan gis na ko si benn compte. Hmm. du dëgg. cent cent lan la. 1000 milliards la wax 1000 milliards waaw. 1000 milliards daa xaj si compte. ah si nit. milliard mille milliards nit mu seen. ah ñoom ñoo yore kii état bi li ni am. ci information am du dëgg laa wax maa ngi koy defiyee bu ko génnee ma xàcc. parce que c'est Ahmad Bamba. xam lépp day wane ne maanaam. day manipuler nit ñi rek ba tey il faut que mu arrêté ko. peut-être man xëy na daa juum xëy na peut-être cent milliards la doon wax wala dix milliards. Hmm. waaye mille milliards. Hmm. nit amu ko fu lu état mooy am mille milliards te loolu bit sa lay doon du ñëwandoo ak kaas. Hmm. trésor sax boo demee banque centrale sax doo fekk mille milliards fii may wax ak yow nii. kon nan la nit mën a amee wax loo xamante ne tax nit ñi koo jox bopp comme xam nit ñi nit ñi weddi nañ ko fi ñu ah, doon wax da leen a dàq politique lu la rek xam nga man rus naa wax lu dëgg hmm. nekk dëgg la parce que loolu laa gëm hmm. ndax ëllëg politique bi day jeex mais bëgguma ñu dima waat si loo xamante ne maanaam bokkul li ma parce ñi ma yaakaar suñu tubaab ñu topp ma kon jàpp naa ni il faut que mu bàyyi manipulation bi muy def askan wi Ousmane Sonko li nga xam ne koy xaar hmm. ñeenti point la ah. yéen ndax Ousmane sonk yow boo amee am na si bi la seetal. ndax da ko delloo si waat. Hmm. waaw wala déet. waaw Ousmane Sonko ndax yow boo amee majorité comme ni nga ko waxee woon loi ngóor jigéen da nga ko criminaliser. Hmm. waaw wala déet. Hmm. Ousmane Sonko yow boo amee majorité peine bi nga xamante dañ ko war a indiwaat. da ko maanaam jàllale. waa wala déet. yow Ousmane Sonko ndax boo amee majorité loi bi nga xam day aar kilifa diine yi da nga ko jàllale assemblée waaw wala déet. ñeent yi kese mooy sama question ak sonk bu si répondre ñaar. Hmm. ma démissionné coalition bi ma nekk ànd ak moom jàppale ko. même fii ci biir campagne bi. même fii si biir campagne bi doo si dégg wax si. ah maa la ko wax. pourtant yéen loolu de moom liroon na texte yeeg yëpp de Ousmane liroon na. texte yi wax ah parce que day ko doon bu njëkk da doon manipuler nit ñi pour jàll rek. Hmm. mais lii ma wax maa ko défier Ousmane koy xam naa ko. Ah. na ci wax est ba mu talee campagne bale dégg nga mu wax si. mais nag mi ngi wax ci kii lay wax nu mu tudd wàllu ak euh, nu mu tudd bu baax da lay wax mel na ni li muy wax. Sénégal day. Hmm. fii may wax ak yow. Hmm. depuis juróom-ñaari weer yi amul kenn ku yokk xanaa ñoom amul kenn ku yokk ku dul ñoom. ñu yor nguur gi. kese. Hmm. waaye Sénégal lam daal yéene si marché yi. tey boo demee maanaam kilo soble. 1000 francs lay jar. carotte wax kilo kaani. Ah. ëpp na 1000 francs carotte mi ngi 3000 fi mu toll ni may wax ak yow. Euh, li nga xamante ni mooy café gi àgg na mille mm-hmm. Sénégal amul loolu laal te yokkuwul courant bi sax yokku na. ba pare xaalis amul si. ñoom daa yokk avant ñu wala ñu dafa boleke tey may wax ak yi. Mm-hmm. benn sànce doxul. ñoom ñoo ko yokk ah. ñoom ñii la parce que dañoo mënul parce que bu nu amul xaalis ñi nga xam ñooy coopération yi war a dem wuti ji. Mm-hmm. mënuñoo dem pour wuti. dëkk bi day feeñ si dëkk bi te kanam la jëm gis nga booy leçon yi jeexee hmm. te ñoom ñu may leen maturité hmm. du ma dénk kenn na nga toog si rek bi man de si man laay tàmbale dinaa gàddaay ab diir bàyyi leen si réew bi parce que dëkk bi du neex ah sëñ bi loolu daanu maa la ko wax te xam naa si dara maa dëkk bi dafa daanu te amuñu ah, pexe pour yëg gis ku gis milliards fenn kay sëñ bi loolu koy wax te yàlla mën na def lu bari bu ko gisee na ko génne hmm. xam nga moom waxoon na ni gis na maanaam quatre-vingt-quatorze milliards yi gis na fu ñu def quarante cinq milliards xam nga ah. gisoon waxoon na ko waaw ah, ak vingt jox hmm. dossier bi man Ousmane Sonko moo yëkkati dossier boobu ñu bind si maanaam Pastef ci kaw waaw mooy plainte bu mu déposé woon man mii la ko jox pour ma défendre ko Assemblée nationale hmm. kon xam nga xamoon naa ko sori woon nan dossier baa ngi man ma denc ba kon jàpp naa ne loolu bu fekkee xamoon na fu mu denc 45 milliards yu njëkkee ci 94 milliards yi hmm. lan moo tax mënu koo bloqué wala mu génn ko comme moo yor nguur gi jamono yi toll ni xam nga gis naa gis naa gis naa amul solo xam nga lu yo hmm. mooy mi ngi nii mi ngi nii ngi nii hmm. euh, bi ñuy ñëw ci nu mu tuddati euh, Macky Sall dafa nekkaat tête ànd ak euh, ñoom Karim Wade ndax loolu yow jàpp nga ne lu sérieux la wala politique noonu lay doxee. Macky Sall daal lu yàq sa moo ko yàq Macky Sall. jërul woteel jëru jege ndax tey ji jafe yu ñu dund yëpp bokk na si parce que moo complot ak Amadou Ba <coughs> ba xale yi jot si réew mi ndax li tax mooy Amadou Ba maa la tànnoon nga nekk candidat na ndax élection yi ndax Karim mën a bokk Ousmane mën a bokk mu yokkal ma ñaari at Amadou ni ko duma ko def par jàmmi senegal moo ma gën a élection lu waa am na si bii nan ko dugal Amadou Ba ni d'accord ma si dugal ko parce que ñi nga xam dañ leen faat war a nañoo xool ne leen faat lu mu doon mu mere ko xeex ko fexe ba génn booy jàppale leen ñu jot ci réew mi lii la du leneen. Macky Sall a def lii lépp Macky Sall moo def lépp. te jëf yu ñaaw yi ngay dëgg yëpp ñu koy lim yëpp Macky Sall mooy responsable kooku nan nga mën a nekk tête liste nekk Maroc di yónnee WhatsApp di wax téléphone ngir nit ñi wootee la. te jafe-jafe yeeg blocage yu métti yi amoon yëpp ci assemblée nationale bi benn bokk yaakaar moo ko def kon jàpp naa ne mag Sall moom jëru jige ndax bopp fas wi ak jëm mag sàll moom ku leen gis. boo leen wat la yaa ngi dugalaat Sénégal si guta guy moo am njariñ guy googu sax gis naa ni gaa yi ci seen plan bi ñu def jël nañ suñ guy gi def ko seen guy ñoom mm. te guy gi ñu ñoo ko moom kon xam nañ njëriñu guy Ousmane nag yàgg naa wax ci guy gi ndax mi ngi misaal suñ Tuubaa bi ñu ko tëjee dama ne guy googu dama ne guy googu noonu suñu guy la ah. waaw guy googu mm. suñu guy la ndax ñu ñëw njëkk génde sax si ñoom ñun bi ñuy def ñoom defagun waaw dama ne moom eh, amoon na envie guy doon na ci xalaat ndax doon na wax ne suñ tubaab bi ñu ko téyee gis na ne buy doxantu de dem ci guy géeg yooyu tubaab yi laaj ko lool loolu dégg nga ko yaakaar naa. loolu ay wax la rek. loolu kon mooy wane ne bu indee tey guy loolu. yàgg na ko loolu wax waxi Ousmane Sonko pour dóor la rek mais guy gi suñu guy la. Hmm. moo tax ku ñuy woteel dàkkal guy gi. ak photo Amadou Ba boo ko liiree gis Cheikh Abdou numéro 9 nga ni bu baax baa ngi nii. woote ko boo boo ko wootee da nga woote pour ñu si góor jigéen. Hmm. da nga woote pour peine de mort pour que maanaam Cheikh Omar Diagne kàddoom nga xamante moom la Sëriñ Tuubaa te neexu mhm. nga faje loolu mhm. saafara bi mooy woote Cheikh Abdou Bara Dolly mhm. woote la Amadou Ba mooy saafara bi naqari bi naqari a dàq naa sax gis ñu dàq ko barki démb si guddi gént naa ko xaw ma danañ ko dàq xaw ma duñ nga ne buñ jegee élection yi sax dinañ ko loolu moo nekkoon seen yéene waaw parce xam naa leen xam nga dañ ko bëggoon a campagne la bu ñëwee élection ñu dàq ko wan ni dàq nañ ko waaye xam nga yàlla bu lu dëttu te Sëñ Tuubaa kenn mënu koo ndax mhm. far affaire Samba bi génn moo yàq mbir mi <laughs> koy yaa yaa ko yaa na ci murid yi moom doon naatan ah far affaire moo wane ñoom fi ñu toll waaw parce que Samba Ndiaye bi mu génnee rek mm. ñëpp ni Samba Ndiaye nu ko dàq parce que daa saaga Ousmane Sonko mais mm. pourquoi que saaga Sëñ Tuubaa ñu ne kenn bëgg kenn dàq xam nga ñoom Samba Ndiaye da leen a mm-hmm. mm-hmm. noonu la ay mbiram di mel voilà loolu moo tax que hmm. euh, sénégalais yi bu ñu hmm. dof. Hmm. sëñ bi ñaata yoon nga nekk assemblée. ñaata mandat euh, am naa ñaari mandat assemblée. yoo xam ne yëpp département laa nekk gañe moo tax mënu maa fay waa Touba sant leen gërëm leen si taxawaay bi nga xam ne tax noonu à tout moment ma soxla Touba jox nan ma wax dëgg yàlla. léegi nag bii moo ñetteel bi. mooy nga xamante ne bu ma yàlla mayee ma dellu ensemble ak ñii nag. wax dëgg yàlla dinaa gën a continuer àggale procès yi. défendre juróomi at yii nga xamante ne moom lañ jëm. ngir que nag man a mën a gën a siggiwaat gisaat boppam ci doxalinu réew mi nga xamante moom la état bi fi nekkoon waroon a defa Touba te defuruñ ko ko subaa nag ñun ñu kaas ba état bi def ko rawatina ñun buñ jëlee nga xam mooy masurité bi tab bu ministère yoo xam ne day dëkk si dëkk bi ak ay directeur wutal ndaw ñi liggéey joxaat sañ bi gëdd jàppale ko ci projet yii nga xam moom la am muy jumaa ji ak université bi ak li nga xamante ne mooy kër yi muy tabax ndax bul fàtte ni dëkk bi ndox mi naan sa baaxul assainissement bi tey ba léegi ndox mi foo jaar day taa. Mhm. xoolal tëli yu yàq yi si biir dëkk bi. Mhm. état sax mënu koo defar tëli bu yàqu rek état mënu koo defar xoolal yoonu guy xoolal pencu mbaay wadd xoolal côté ndindi. xoolal armel yi xoolal gaar bu ndaw. fépp yàqu te état moo ko war defar te état nangu koo defar. ñii nag dañuy soog a toog bi dañuy. soog a juróom-ñaari weer tëli bu yàqu tey jii boo ne woon Cheikh Abdou Bara Dolly oh. yow defaruñu tëli sax ñu defal ko maanaam jàppale la ko. ah tëli wa parce que defaraat tëli moom tëli yi moom ko def nag tëli moom bu fekkee Touba la waroo cee xaar état bi ndax yow li nga li nga ci doon fii may wax ak yow tëli mënoo koo laal te amoo autorisation ah waaw c'est vrai c'est dëgg loolu moom tëli tëli yàqu yëpp motul deux milliards mais ñoom doo amul yéen a defar Touba dara xam nga am yéen a defar

fële ci kaw. booy dem maanaam euh, fi nga mm. xamante maanaam moom mooy daaru saw. autoroute bi foofu kenn mënu faa jaar. boo demee jantu kenn mënut a jaar foofu noonu. tëli yëpp a yàq xam nga tëli yëpp yàq ñu dëkk si dëkk gis loolu ñun. teg suñu bët. Mm-hmm. mais waruñu koo kaas. Mm-hmm. waruñu dem ensemble ministre bi yor mbirum transport ñëw ñu ne ko tëli yi dafa yàqu. Mm-hmm. est ce que buñ fa nekkuleeg bar wax kan moo koy wax.